asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki rajo Xassida online Touba Monde bi ñu ngi leen di nuyu leen ziar baax di leen siyaare fii ci Touba Lekko ci bés bi nga xam ni ci la ñu war a siyaare eh, eh, Serigne Mamor Mbacké ibni Cheikh Mouhamadou Moutada ci liggéey bi nga xam ni mi ngi koy amal ci Italie eh, sunu borom daf ñu tawfeex nag ñu toog wax dëgg yàlla ak sunu ñaari mbokk taalibee ñu ràññee leen nag ci liggéey xasida yi muy Serigne Abdoulahad Diouf ak Cheikh Bamba Eh, ginnaaw nag ñoom ñaar ñëpp ci xasida yi la leen kon day mel na occasion lay doon ngir ñu waxtaan ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne si Cheikh Mouhamadou Moutada moom la defal waa bitim réew sëñ Blaat sëñ sëñ Ablaat day mel na wax dëgg yàlla macha allah yàgg na yàlla na gën a yàgg nag dara ji sëñ Tuubaa ànd ak ma Mouhamadou Moutada ba ci sëñ ba ci sëñ Maamoor ñu yàgg ñu laaj ñu ñaan àgg boobu euh, euh, ànd boobu saay mu yàgg lool waaye jëriñ doon la doon la ñaan rek ginnaaw boo nuyoo mbooloo mi nga dimbali ñu rek ci ànd bi nga ànd ak euh, ak Cheikh Moutada ak la nga xam ni moom la ci suñu borom defal ci wàllu xasida yi ak jamono jii ñu toll ci euh, sëñ Mamor moom it nga xam moom dafa sof dafa sof ci liggéey bi nga dimbalee ñu moom yow lan nga ci ci liggéey bi nga xam ne moom la moom la amal ci bitim réew bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki euh, ja mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mboolem ñi nga xam ne ñi ngi déglu rajo bi ci seetaan scène bi télévision bi fii si ak Europe ak àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bu baax di leen siyaare di leen ne tey sunu xol dafa sedd lool ndax euh, liggéey bu barkeel bii nga xam ne suñu borom da koo nangu te yàlla boole ñu ci ku baax ka góor yàlla Cheikh Mouhamadoul Mourtada boole ñu ci waaye doomu ju baax ji sëñ Maam Moor moom it boole ñu ci suñ borom it boole ñu ci ñu fas yéenee nekk rek ànd koog sëriñ bi ni ko waxee nag euh, Italie rawatina Milan su ma fi ñëwee dana am yëg-yëg ndax at mu ñuy wax euh, soixante-dix-neuf euh, safurla quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-huit laa njëkk ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mourtada ñëw fii ci Italie astaghfirullah 98 la ma njëkk wutal visa mhm. ma jóge Paris ñëw fii booba bokk guñ sengeen euh, ca déwén sa mu indi ma fi ñu daan wàcc fii booba booba kër sëñ tubaa gi yaakaar naa nag ubbeeku waaw yàlla def bu wàccaan ci aéroport bi ma topp ci ginnaawam di yëkkati xasida ba mu dugg ci biir bu daan génn itam may may may yëkkate xasida ñu di ko siyaar bu tubaab yi toogaan itam may yëkkate xasida waaye li li set sama xol mooy xaw naa cee gëj waaye bi ma dellu see damaa gis ni sëñ tubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ci sëñ laa ko gëmee fukki waaw gën naa yokk gën naa yaatu gën naa rafet gën naa sell gën naa tegu ci yoon macha allah loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin loolu rek lañ yaakaar ci moom te noonu rek la mën a demee ba tax na suñu xol seet na bu baax baax mën wuñu wax daal waaye macha allah macha allah Diouf macha allah Diouf waaw xam naa ne yëg-yëg boo boo am rek xam naa boo ñuy fàttali ci jamono ji ngay ànd ak Cheikh Bouna Moutada ci wàllum jàng xasida ban yëg-yëg nga daan ban yëg-yëg nga daan am ci jàng ci ci kanamu ci kanamu doomu Sëñ Tuubaa waaw waaw yëg-yëg bi ma gën a am mooy at at bu ma juumul deux deux mille trois la. waaw deux mille trois wala deux mille deux deux mille deux la. deux mille deux dañoo ànd ñëw fii. ñu dem Rome. Rome yàlla dogal këru laa di dispali googu ci Rome ñu jënd ko sëñ bi di ko immigré waaw yàlla dogal keroog ma gis sëñ bi xar kanam boo xamante ne bi ne wóor na ma ne bég na macha ndax kërug lislaam googu am ci rob yàlla dogal keroog ci buntu buntu néeg sëñ bi taxaw naa fa rajas fa jës moowaay bu mu xaddimaat macha allah ba ba moom moo mujj woo woolu ma ma ñëw reer ci biir néegam macha allah mu jox ma bool bi nga xam ne ca la doon jëfandikoo ma barkeeloo ko macha allah loolu dama ko fàtte ma macha allah macha allah macha allah jërëjëf jëf jërëjëf Cheikhoun Bamba maanaam sëñ moom bu waxee rom rek faaw ñëw ci oo moo dafa mel ne moom moom dala dala ubbil bunt moom xam naa ne ndeysaan waaw ñu doon ñu bëggoon nag foofu noonu ci la dispoli mhm. kër kër sëñ Touba Salaam mu doon tur woo xam ne nit ñaa ngi koy dégg mu doon tamit kër gu yéeme goo xam ne du ñàkk xëy na am nga ci loo ci mën a baaxe mbokk bi rek ngir ñu xam taxawaayu taxawaayu kër googu incha balaa ñu dugg ci wàllu xasida yi incha allah. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. Eh, sëñ Amet jërëjëf ñu ngi leen di ziar bu baax ci bis bi. Mhm. di leen di ndokkeel te di ñaan suñu boroom mboolem lan war ak lasaraar yi nga xam ni bis bi mate na ko yàlla na ko Serigne Touba ful defal ñu ko ay xéewal. amiin amiin waaw kër googu nag euh, Rome mhm. yàlla dafa dogal mhm. suñu borom dafa dogaloon mhm. ñu nekkin fa ñu nekkoon fa nekkin bu xaw a gàtt waaye diggante boobu ñoom ñu fexe ba wut fa kër sëñ Tuubaa macha li ma ci mën a leeral nag mooy bis boobu maa ngi koy fàttaliku bu baax bi fi sëñ Mourtala ñëwee daanaka def na fa Euh, ñetti fan. Hmm. Euh, bi mu fa toogee nag def fa ñetti fan. Hmm. wax dëgg yàlla am na benn bis maa ngi toog. ci hmm. ñetti fan yooyu benn bis maa ngi toog di jàng lillahi rabbil lazi qad jaadala bi huda ci bunt bi. ba mu jógee mu woolu ma ni ma kan mooy jàng loolu ñu ñu ne ko man. mu ñëw. mu daal di may wax ni ma jërëjëf. macha allah waaw ndax xam na ni xasida googu. fa mu toll ak moom. macha allah macha euh, kër googu nag la tax mu jàpp ko. mooy dafa doon wax bis boobu dafa ni Abdoulaye Mbaye Peex. ak euh, Abibou Mbaye mhm. na fexe ba euh, dem euh, ca Vatican ba mhm. ngeen photo ko mhm. filmer ko su ko daal defee bu ëllëgee ñëpp xam ni sëñ Touba am na fi kër ci Vatican nga xam ni mooy capital christianisme wax dëgg yàlla tey te bis boobu waaw lu ñu fa def def na ko ci rom bi nga xam ne wax dëgg fonk na fonk goo xam ni daaru salaam la ko tuddee. bis boobu noonu la noonu la la macha allah sëñ bi xam nga lii lu am solo la gis nga maanaam histoire kër sëñ Tuubaa dañ koy war di ko di ko xamal mbokk taalibe yi daanaka daanaka booy xool kër gu nekk rek am na benn réalité boo xam ne nit ñi war nañ ko xam ndax day tax ñu gën a jàpp ñu tudd euh, taxawaay kër ga léegi nag ma bëggoon dugg ak yow ci sa diggante ak sëñ Maam Moor ci wàllu xasida ndax dañuy gis ni daanaka saa yu ñëwee Italie rek da ngay bàyyi sa lépp ànd ak moom te saa su ne ngay am yéene di wane sa euh, sa yéene ci xasida yi ci ci say teewaayam ma la doon laaj rek sa digganteek moom di la laajit taxawaay bi nga xam ne moom nga am ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy amal fii ci bitim réew. waaw xam nga euh, sëñ Mor. Hmm. Euh, gannaaw loolu. Hmm. suñu boroom dafa dogal ñu ñu juddoo ci foo xam ne juddoo ndar. dëgg la ñun ñu juddoo ci xasida yi ñu nàmpatanu ci xasida yi. Hmm. ba yàlla dogal. suñu borom. dimbali ma ba Cheikh Mourtada bi mu ma sànni ñëw ndar. Mhm. am na dëkk bu ñuy wax. encore sama mbokk ndar nga kon. Euh, waaw est-ce que. <laughs> bi mu ñëwee foofu ci ndar. <laughs> cité Bover. cité Bover macha allah. sama papa jàpp ma ci sama loxo waaw ngi noonu. bu alaaj jàpp ma ci loxo. Uh-huh. dem ba ci sëñ sëñ Mourtala ni ko jébbal naa la ko. macha allah wallahi la asim. macha allah bis boobu bi may jébbali ci sëñ Mourtala maa ngi ko jox xaside gu ñu naan. Euh, Lasmaal Xusna. Lasmaal Xusna moom laa ko jox ba nga xam ni am na at miraar yu bari yoo xam ni saa yu ma saan ñëw Touba. Uh-huh. damay wecc ko xaside gu lu tolloog ñaar fukk ci uh-huh. xasida googu uh-huh. ak um, kaamil alquran di ko uh-huh. jébal at mu nekk uh, ba bi yàlla dogal ñuy ñëw Italie di ànd ak sëñ Ablaye Seck màggalu Pisa ñu ñëw di fi jàng màggalu Pisa ba yàlla dogal ñu ñu ñu ñu ñu ñu nekk ci Italie mhm. waaye ginnaaw loolu bi sëñ Mourtala wàccee liggéey mhm. la ñu yees lu ci kanamu sëñ Mamoor sama waajur jël jox ma sëñ Mamoor ne ko jox naa la ko àddina ak alaxira muy suñu sëriñ di suñu di suñu lépp nga xam ne moom la jébbal mooy suñu lépp ci àddina ak alaxira Euh, rawati nag ñu ànd ak moom nag ba fu mu mën a toll muy Sénégal ak fépp rek fu mu fu ñu ko gisee rek fu mu ñëwee rek suñu jàmm day jeex ndax moom la ñu yaakaar àddina ak àllaaxira maa ngi soo comprendre kon maanaam defe nu maa ngi soo comprendre Chablat sëñ Mamor mii dafa ñëw ci gox bi gox bi fukki daayira ak juróom ñoo fi nekk diggante air ba ba lëdi ñu bokk mboolem xeexoo sëñ Tuubaa waaye ci suñu yéene bëgg liggéey sëñ Tuubaa sëriñ bi tudd ñu raabitatu wasilatu rubuux xam naa loolu du ñàkk déggoon nga ko waaye nag mu bëggoon la laaj rek ci diggante raabitatu ak wasilatu rubux boobu loolu ci mën a loolu ci mën a baax baaxee incha allah. jërëjëf la xam naa ne loolu moom liñ ci xam te man koo wax. Uh-huh. mooy war ngeen sant yàlla. ndax bu fekkee Serigne Touba dafa taalif. wasilatu rubux waaw taalife ko ca Gabon. Uh-huh. dem ba ca biir mu ne lakk mataabiya bi shukrin wa rida yaa waasian wasanta lii bi murtada mm. nga xam ne mi ngi bayit woo mi ngi ci biir xasida googu addunay mm-hmm. dox ba sëñ bi jóge ci géej gi mm-hmm. dellu dellu Sénégal mm-hmm. Cheikh Mahamadul Murtada feeñ mu tudde ko Mouhamed wax nañ ne kilifa dolli ca al murtada ñu dem ba bayit woowu feeñ mu mel na gox yi yëngu nañ lu yàgg kenn déggagul wala boog siiwul ci ku ko sëñ Mamor tuddee dëgg la mu ñëw ba ci gox bi tudde leen ko loolu daa mel ni yéen am ngeen sasu rëy waaye am ngeen sasu rëy kon nag loolu moom duñ man lu dul fas ko ànd ak yéen di ñaanal yàlla dëgëral leen ba lim gis wala lim yëg ba tax mu tànnal leen tur woowu amiin amiin daje teeg tawfeex amiin Diouf amiin Diouf amiin Diouf jërëjëf si ñamet ndax eh, lii moom mm-hmm. am nañ ci ci bu baax. ndax euh, rajo bi xam nañ ko bu baax te ñëpp a koy seetaan. waaw jàmbaar lañ waaye yéen da ngeen doon ñoo xam ni li sëñ Mor li sëñ li sëñ li sëñ li sëñ Maam Mor di wax. Euh, li gën a am solo mooy sëñ Touba liggéey loola. la ndax nit mën naa ñëw ni dama bëgg liggéey sëñ Touba waaye sëñ Touba liggéey loola. moo jafe. te loolu ngeen am. moo tax ngeen xam ko. sa témoignage nag ak sa bëgg sëriñ bi ak li ngay toppi sëriñ Mor gis nañ ko bu baax dégg nañ ko ndax daaw rek rek sa sa sa sa sa sa sa intervention dégg nañ ko. waaw kon yooyu yëg-yëg la. kon nag euh, ñu ngi ñaan daal. lépp luñ ci luñ ci bëgg. yàlla nañu ko sëriñ bi boole. amiin amiin barke xasida yi ñu yàlla yàggal fi sëriñ Mamour Mbacke. yàggal fi sëriñ Muntaxa ak mboolem surtout sëriñ Touba yi. ba ñu nit ñu yàgg nekk seen gannaaw. ba li ñu bëggal sëriñ Touba. bëgg ko ci ñun yàlla nañu ko am. barke xasida yi jërëjëf jërëjëf Cheikh Bamba jërëjëf sant nañu bu baax xam yàlla bu baax yàlla ci jotaay bu am bi di sant baax sëñ Abdoulaye di ñaan suñu borom yal na yàlla sàmm te aar leen te dafa leen tawfiix yaatu ci bari xasida gi sant nañu baax xam naa dafa mel ne sëñ baa ngi ci yoon wi moo ñu jiite tàkkusaan bu ñëwee ñu daal di wéyal programme allah kon waa rajo Xassida Online ñu leen sant baax yàlla suñu borom barke liggéey bi ñu ngi seen sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke ci joyta incha allah <laughs> tubaarkàlla di jaajëfal bu baax euh, sëñ Modou Mbaye Fall ak mboolem ñu ngi xam ñoom la ànd def yëpp jërë